asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu dellu si waat ak yéen ci benn waxtaan ba tey rek mu jëm ci réew mi ngi bokk te jafe-jafe yi tàmbalee feeñ bu baax a baax liñ leen doon wax naan leen li raam li raam ci ñag bi la jëm mi ngi raam bu baax waaxu nag jëm ca ñag ba te ba tey nit ñi nag waxuñ ci wala boog su fekkoon dañ ci war a wax sax xanaa ñu jël ci conscience ndax nag gis nga ay du yam ci bopp borom bi ma doon wax bërki démb ci suñu waxtaan bi weesu moom mooy li wér ndax nag ñi nga xam ne yëgaguñ ko ndax xëy na bari na ñoo xam duñu dugg ci internet bi wala bokk euh, seenuk dañ kumpa àggul fi ñu bari àgg nañu xam ni bërëb boobu nga xam ni moom la waa Pastef moom ci benn bërëb ci Ndakaaru ay nit jaar nañ fa biig tojate ko rajaxe ko yàq fa lu bari muy Pastef mooy xale boobu ñuy wax Ousmane Sonko euh, dembit gis naa ci internet benn station boo xam ne bii taal nañ ko nee ñu ay nit a fa jaar yor ay moto wala scooter xayma euh, nee na euh, pompe benn pompe ba daal di koy taal loolu waxuma la sax maanaam yàq ga waaye danger bi mu mën a jur station d'essence bu tàkkee bu mband ya explosé kenn xamul fu loola jëm kenn xamul fu loola jëm nee ñu ña fa jaar dañoo wàcc foofu ay flyers flyers mooy kayit yi nga xam ne ci mooy naaw ñu ciy def foto yi euh, candidat yi nga xam ne ñoom ñooy xëccoo yëf yi flyers yi ñu ne turu xalifa euh, Sall la ci ne waaw ma ni nan la ab saay-saay di jóge di defi lu bon ŋàbb carte d'identité dem ba fa mu koy defee di ko fa sànni xanaa nag kay nag loolu xel nangu ko yow nga jóg di yàq ba pare yow di yàq ci ci turu nit dem ba foofa bàyyi fa màndarga buy wane ne loola yow yaa ko fa def loolu daal man jàpp ma ne xel nangu na ko ñu ne déetewaay ñépp ngi gis ci internet ay nit ñoo xam ni ñi man ñama ca xool ñépp gisuma ci kenn koo xam ni kii as as as cakkatiw la ñooñ sax doo xam fu ñu génn ci senegal doo xam fu ñu génn ci senegal damay bañ a wax ni ay mbër lañu ñu yaakaar ni damay wax waxu mbër yi déedéet waaye ay mbër lañu gën a nuru kenn ku ca yaa nga toll nu la neex xamoo fu ñu génn ci senegal man jàppoon naa ne Sénégal yorul ponkal yu toll noonu ci boobu lim loolu xam nga yéeme na kon li ñu jëm mooy lan réew moo xam ne mii nit ñi dañuy wax fas yéene reyante gorante taalante fitna ji ne tulleeg màlle su ko defee lan élection yi ñuy séentu sax boo moytul nag du am faf te doola dana am ñu mu arrangé yaakaar naa waaye élection yi dara mënu koo teree am démb def naa loo xam ne lii baaxoowuma ko mooy di commenter sama vidéo loola da mun mënutoon a ñàkk di ca wax ni man vidéo bi ma dugal démb dama caa jànkoonteeg ay jafe-jafe yu bare di ko gëstu ba gis ne ndeke man sama compte YouTube dañ ko piraté woon wala ñu bloqué ko wala ñu bloqué lu ko ba ma demee Facebook wax ko fa ay mbokk partagé ko mu yaatu ma toog lu mat waxtu ak nangam xool gis ne ñaari vidéo yi ma posté woon ñoom la ñu génne waa ndoo def naa lu mat juróom fukki vidéo ñi ngi ci YouTube amu ci benn boo xam ne bii poste ba mës naa def ñetti minutes yu mat laa wax ñetti minutes yu mat kon loola tey na xel ñetti minutes mësu koo def damay poste mu chargé di dugg ci biir internet man ba ma demee poste ko daj naa ca lu ne lu ne te la ca yéeme nag mooy bi ma ko postee man mu lànk dama ko jox keneen mu posté ko ci saa si mu jaar fa mu daan jaar dama ko jox keneen mu posté ko ci saa si mu jaar fa mu daan jaar kon kay sama compte booba amoon na nduxum bu ca duggoon bu ko defee nag ñu bàyyi xel ci lii xew am na yoon yeneen yoo xam ni sax maa ngi jànkoonteeg ñoom euh, bëgguma sax sama njaboot di ko xam mu mel na day yóbbu seenu fit déedéet parce que nag am na yuy xew yoo xam ni yooyu moom Euh, mën na am da ngeen ko mës a xam waaye réew mi moom jax na jaxasoo na te nit ñi euh, jëlaguñu conscience ci danger yi ndax sénégalais nag moom mbir mi tànk dalul ci boppam rek du xam ni moom la dal te da xam ne ñun ñëpp de ci suñu bopp yi lay dal lu dal Sonko wala mu dal Khalifa Sall wala mu dal keneen wala mu dal sa dëkkandoo bi jàppale yow la dal ndax lay raam jëm ca ñett ba mën na laa mën na laa gis naa démb imaam yeeg ñoom soi-disant imam ñi tudde seeni bopp imam ak ulema euh, nee ñu ñi ngi def ay mise en garde wax ak réew mi ñoom dañ leen disqualifié woon bu yàgg ci ci ci course bi wala ci combat bi ñoom xam nañ ko ndax ku far doo atte ku far doo atte imam de la grande mosquée de Dakar ca Tabaski ga defoon naa ci vidéo mi ngi ci internet fii la taxaw di xas ay nit publiquement ci kanamu président de la république kooku waxoon naa ko ca jooju jamono ne ko yow déjà yow non partant nga bokkatoo disqualifié nañ la disqualifié nañ la ndax nag ku far du àtte sëriñ si tamit ñu ci bare feeñal nañ seen position ñu ci bare feeñal nañ seen position wax yaa ngi fii ci internet ñëpp di ko gis télévision yi tegoon nañ ko ñaanal Macky jàppale Macky jàppale réew mi moo ko gën su ngeen jàppale réew mi réew mi moom ku mu ko neex mu fal ko citoyens yi dofuñu jël sa intérêt yi bopp jiital naan dinañ la ñaanal ak dinañ la jàppale yow yaay jàpp mais citoyens yi ñoom dofuñu xam nañu fi seen njëriñ nekk bés buñ ca àggee danañu xam lañu war a def lu mu doon man jàpp naa ne sax ñenn ñi ci ñuy tàllal seen loxo di ñaan ñooñu bu ñu ñaanee boo moytul mu jur jur fitna ci réew mi ndax yàlla nangootul xa ñaani ñenn ñi sama catégorie ndax parparloo parloo jeng par jeng ba nga xam ni yow suñu boroom sax boo ko tàllalatee loxo du la ñaan du nangu say ñaan réew mi ku yaakaar ne ay ñaan moo koy réglé rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kañ fa la ñaan ci moom la fege fa ña ca moom la ñaan fege te teewul da daan ñaan ba pare wëlbatiku def la mu war a def ba waaj a dikkee seen ko daw jëm ci moom ndax yàkkamtee gis ziyaar ko dafa ne ko yee eh, mbaa sa giléem gee yeew nga ko mu ne ko bàyyi naa kook yàlla kub yonentam mu ne ko demal nga yeew tànk bi soog koo bàyyeeg yàlla kub yonentam kon problème dañ koy regle humainement ba pare dañ koy régler humainement mooy lan nit ñi taxaw temm ci kenn ku ci ne sàmm say àq te xam ni nag réew mi dañ ko bokk sénégalais yi li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg bu dee mooy falaat Macky Sall ak ci bismillahi rahmaani rahim na ñëpp ànd bu dee loolu mooy seen bëgg-bëgg su fekkee loolu la ñu ne moom mooy seen avantage su dee gis nañ ne moom amal na leen njëriñ ay ca bismillahi ñu ànd ci su boobaa danañu kenn dootu fi taxaw di jooy kenn dootu fi taxaw di ñaxtu kenn dootu fi taxaw di ngunum ngunumi su fekkee ne nag ñoom jàpp nañ ne Macky Sall doyal nañ ci moom ñuy def ay pexe nag jël ay ponkal nag fay leen xaalis solo leen di t-shirt wala ñuy ndoxum fichier électoral bi ngeen koy teg seen bët ñii di am ñaari carte d'identité kon ku am ñaar mën ngaa am ñett mën ngaa am ñeent mën ngaa am juróom mën ngaa fu am fukki carte d'identité xëy suba di wote ñu boole lépp comptabiliser loolu yépp lu possible la parce que dans ce pays rien n'est impossible maintenant bu fi dara bettee loola nag su naree am na leen leer na dara du fi sedd dara du fi sedd nit ñi nag intimidation yeeg yenn façon yeeg yooyu yépp du régler réew réew dañuy def jàmm di wax jàmm di dox doxal jàmm njub ak yoon di dox jàmm soog a am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.